gifted and Safi Ramadan Mubarak Holy Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن Happy Ramadan Chahara Rahama Réel Hibou Bekir Ya Chahara Ramadan Bekir Raji Aujourd'hui ma Je vais entrer Dans le salap Soud <laughs> Oui Mais pourquoi Ce salap Soud Il gagne des saucissons <laughs> Oh la la Kiki, shut up! de portulation. Tu devrais attendre La déroulementation. La vaviation. La circulation de derrière-mentation. Quelle femme. Oh, quelle formation. Ah, ah, ah. Hmm? Toi, ton, est là-bas. C'est pas là, c'est pas

condamnation de libération. Ça, c'est une libération extraordinaire. L'intermarchation. Pour que quand la femme ressuscitation. Ah, oui, oui, oui. Oui. Pourquoi tu veux dire Non, je ne vais pas en création. J'attends nation. Eh! Le retournement d'action. Pourquoi tu veux dire ma café Non. Je rattracement. L'action est ici. En direct. Très bien. Maintenant, la, la, la filmation va continuer. fa <laughs> ou non donation mhm. la nation de de de tout ce qui se passe dans la nation quand toi entration de de de la douchation normal entration de la douchation Si directement situation est eh. entre de yon nation y a rien rien. sa yeelu jam ñaajo yi ngay romb fii di def lu la neex mu ñi xanaa xamoo danoo woor. elle n'est pas imputation elle est. sa yu bon yi nga ah kër laa nekk. très bien ma neex ah, sa biir kër daal nga nekk moo tax nga sol sa slip dinu romb nii naan na ngay sangu. déglu ma yow it déglu ma yow yi yaa ngi yëndu. ah non non. bu wooree da ngay sa bët dafay woor sa gémmiñ woor sa lépp woor sa xel woor. ma ne loolu gënoon ñu ko xam. ñeen ñi yàq ko gis nga weeru koor dañuy tënk iblis waaye yow kër gi yàllaa fi dogal yaa fi iblis ndax yaay sol sa yu. ñàkk ngeen jom trop bëgg jigéen. sa ñeen a feebar yéen ñi feebar la sax. sa say say bu. Ah, ngeen jom trop. sa say say say bon yi say ñu ne ñàkk jom l'orientation eh eh waaw yow wuyu kii wóorul waa kii kii bon na trop mais yéen yéen amu leen jom kii amul jom waa imam eh tey soxla nañ waaw tey soxla ko gis nga li ndaw si di wax yëpp mu imam loolu rafetul saxul ramadaan saxul sa làmmiñ a woor sa a woor très nar a yàq seen koor. Baye Fall. ah lii yéen ne da ngeen woon. Baye Fall am jom am fulla bi ñu yàlla bu la bu la waxee bu defee bu waxee santaane tamit naa waatal naa moo très bien naa topp naa bàyyi lépp lu mu la tere. Célébration, l'imam a bien alimentation, l'action. Tu as bien compréhension. La prochaine formation, nous ne faut pas regarder la formation. kon yéen ñi nekk ci réew mi ak bitim réew weeru koor chehru ramadan dañ koo war a sellal sa cër yi daa war a wóor sa xol bi daa war a wóor beneen bi Baye Fall du ci sol yëre du ci sol njaxas Baye Fall ci xol la kon yéen ñi bëgg Cheikh Ibra Fall te di ko roy dee leen fonk weeru koor te bañ di caaxaanee bindu baay faal bi ndax kat sol njaxas rek ñu lay woowee Baye Fall doo Baye Fall waaye sa baayu boppum